dañoo tëdd ba guddi am benn xale bu góor bu ñu fëgg agressé sàcc la lañ ko teg ci luñ ko teg ñun man ak sama jëkkër yëpp la attaqué moom mu ngi yore woon gànnaam mi man ak sama jëkkër ñun ñoo ko mujjee dóor ba mu dee gaañ. da a xeex ak moom. waaw. sa ban heure la woon loolu. le treize mai deux mille onze. jour jeudi ci guddi ay dix heures ci guddi. ay cours lañ ko dóor ba mu mujjee gaañ. ba mu mujjee moo moo faatu. ñu arrêté ñu def nañ six ans. deux mois. Uh-huh. gendarmerie moo ñu jox turam ñu ne moom noonu lay def parce que am na beneen xale bu jigéen bu ko njëkk a def. Uh-huh. fëgg ko bu ko violé yooyu loolu moo ñu sax gën a sauvé ba ñu jugé ñu bàyyi ñu. waaw 18 juillet lañ ñu jugé ñu libéré ñu. ne ba defoo leen dara. papaam sax ñëwoon na recensement bi. ñun tëdd nañ 6 ans 2 mois mais mai 2011 jusqu'à 7 août. sa jëkkër fan la nekkoon. sama jëkkër mu ngi woon cent mètres waaw man def naa campement sept mois mais tëngéej laa gën a tëdd sama kaso moment bi ngeen tëjee kaso bëgg amul benn yoon boo gis six ans yi benn yoon boo gisanteeg sa borom kër si dem naa fa 2011 moom ma mayoon directeur bu mag bi moo ma yóbbu ma dem ba Saamet dem visite ko benn yoon boobu nag lañ mu jéggi sax waaw. yéen ñaar lañ libéré woon benn jour. ñaar ñoom lañ libéré même jour. Ah aawam bi sax na ci diggante bi. moom bi tas nañ. tas nañ waaw. bi mu nekkee ci kaso bi la tas ak aaw bi. waaw moo ko ñaan baat mu ne mu ko parce que. yéen ñaar yéen a ngi sëy ba léegi. waaw ñu ngi sëy moom daa feebar sax insert ko da koo daana démb tuuti mu dee démb. waaye xam na ne bu toogee duñ mën a am lu ñu lekk moo tax mu dem sama feebar biir bi waa day métti sëriñ bu ma dem ma mën naa ko fa jox ma ta kaw la ki ma demoon kaw la cent mille la ma laaj hôpital def naa quatre ans yoo xam ne ñu ngi ma doon suivre ma nekk ci prison ba numéro médecin bi sax mu ngi ci man ñoom dañoo dem ba jàppi ma dof parce que métit bi daf ma doon daaneel may def sess yoo xam ne dañoo dem ba jaaxal sama doom yaa ngi foofu ma bàyyi leen bàyyiwuma foofu dara amuñ sax lu ñu sol foofu ñu dëkk borom kër bu ñu ko abal foofu la xamee sama jëkkër ci prison bi moom tamit dañ ko arrêté woon moom borom barke la doon jëndat di jaay oto mu jënd benn oto boo xam ne dañ ko sàcc léegi ñu arrêté ko moom def fa deux ans foofu la xamee sama jëkkër moo ñu abal chambre bi ku ñu jàppale la ñu déparé ak ak li ma fajoo man sama biir bi mu wér rek ma am jàmm dama sonn ku ñu jàppale rek sama njaboot gi sama feebar bi yëpp. bi ngeen nekkee ci kaso bi sa doom yi ku leen yoroon. sama tant moo leen yore woon ma génne man maa leen dem jëli cinq bant laa mais biñ ma jàppee ñëpp a tasaaroo kenn ki mu ngi Touba suñu fàllu taaw bi mu ngi Mauritanie sama maamu jigéen a ko yore woon ñaar ñi ñoo nekk fii ki ma yóbbaaloon ci prison ba bi may dem mu ngi doon nàmp moom tamit. Ah, photo mu kon la jàppee. maa ngi doon nàmpal photo mu ngi fii ci photo yi. da nga ko yóbbaale prison. dama ko yóbbaale foofu la fer am na quatrant ans ñu doo ko yóbbu SOS eh, bu mbuur bi ma génne ba tey tegu ma bët damay dem ma seeti ko ma ne ko wa mu dem jox ma téléphone bi xale bi ne yaay génn nga man ko wax. sax xal sa doom ji bi ngay dem ci kaso bi ñaata ñaata. amoon un an quatre mois. instant bi le 3 décembre bi la am huit ma moom téléphone mu ne ma kañ nga may seet si nag ma ne ko dinaa fa jóg ma indil ma yére xaw ma lan ak lan quatre la demee Mbour mu ngi dem la dee. décembre 2013 lañ ko yóbbu Mbour référence amul Mbour jusqu'à maintenant gisuma ko. Ah. ça fait quatre ans. bi muy jóge ci yow ñaata at la quatre ans am quatre ans ngeen ngeen nga def moom ci kaso bi. waaw léegi ba tey xale boobu def ngeen quatre ans ci biir kaso bi. waaw def na quatre ans yi mot sëkk muy doog génn parce que amu woon benn mbokk bu ma ko téyeel. am na huit ans trois décembre bi la huit ans moom laa mujjee am comme doom. su ma buñ ma dimbalee ma wér dimbali sama njaboot ya amuñ sax lu ñu sor sama doom bi fu mu ne ne boo taaloon oto ñu yóbbu ma yóbbu la ba sama biir néeg. nga laaj leen seeni yére ñu won la amuñ sax luñ yére waxuma yére sedd mais yére buñ sol sama jëkkër ji wéeru démb ci guddi billaahi damaa fanaan toog maa ngi nii nelawuma pour woon sax day dee mu ngi ci 64 ans mag la. moom moom fenn fu ma jëm samay mbokk du yàgg ba ñu fat ma. kon dañ leen a jiinoon rey nit daal. waaw. Ah? waaw waaj bi ngeen ko dóoree ba mu dee yéen woote ji wala. kii chef de quartier bi moo woote i moom sax boogu moo di dina xëy waaye xëy na dem benn magam bu góor moo ko jox kalandoo mu koy dawal mu ci mën a am dépasse. xam naa daal xam na ne bu xëyul du ñu am luñ lekk. bon nañu waaye. dañoo amul doole rek. ndogal la rek yàlla sunu borom suturaan ñu ba tegg ko. léegi léegi loolu tribunal wax. bu baax lañ tasal bu doon ko bon la du baax. parce que jour boobu ñu siise ñëpp ay vingt ans quinze à perte perte rek lañ dégg. tay kirim la. a ñu dem ba ma fa xam ne ba tey juge wuñ leen ak yeneen ak yeneen. waa ji dafa doon sàcc ngeen jàpp ko. waaw ñu dóor ko waaw am na lu mu yore woon xam nga paaka la daal xam xam ñu bi sama jëkkër moo ko moo ko ko jam mais enquête bi mu dayee ba ci biir xam nañ moom mooy ndingaan naay bi muy dugg mu ngi ci ci 60 ans yi benn xaw ma ñaar instant mu ngi ci 64 ans kooku xam nga ne du xeex la luy te ki ngeen rey ñaata at la am. kooku moom xale la moom 45 ans yooyu rek war a am te amu jabar amu doom. Uh-huh. ana ay mbokkam moom. papaam ñëwoon na ci jugement bi de. waaye ñun xamuñ i mbokkam wax dëgg yàlla. Ndoye Bane sonn coono gi ma man damaa foogoon bu ma yàlla may liberté sama xol day seet ndeysaan li ma daj ci sama kaso foogu ma woon dinaa génn encore continuer encore di dang-dang. ah ba léegi say mbokk sa yaay ak sama papa gaañu na sama yaay sama papa sama yaay mu ngi gaañu 2007. sama papa mu ngi gaañu avril 2004 am na mbokk yi ba yu ma mën a jëndal tey tey kër wala oto mais mbokk yooyu ñoo baaxul. Fall Pikine ko xamul amut Sénégal sama maam la direct. tey ji ñaar ñoo ñoo ma ci dimbal ku nekk vingt mille la ma jox vingt mille yooyu moom laa njëkk am comme xaalis sama faj bi maa ngi di gis nga daal lañ ma sol yi ma am ñoo ñoo ñoo doy waar ñi ma ñi am yërmande am yërmande ji man ñooñu wuñ ma lu bari ñi nga xam ne am nañ ko mën nañ ko ñooñu baaxuñ li ma am ci mbokk yi nekk extérieur buñ leen doon taal duñu jeex te yor nañu xaalis bu dul jeex mais faale wuñ ma xamuñu ma sax te jënte wuñ ma sax. xam na ni yaa ci problème. lekk naa prison six ans yoo xamante ne sama ñaari séer sama yaay bu ndaw bi bokk sama yaay ndey ak baay sama benn frère ñoo ma doon seet ci sama famille muy bari yëpp li ma am ci famille yëpp yëpp waaye sama mbokk yu mbokk nga xam ne am nañ baaxuñ ñu am sama yërmande tane wuñ ma lu bari am yoruñu doole dama sonn dama sonn